ne ñoo fa nekk ay jaam la ñu leen jàppee te nag boutique ba nga xam ne moo nekk ci Cap Manuel la nga xam ne moom la ñuy jaay maanaam seer na genn xeetu seer goo xam ne fu ko waay natt paas naka Guy Marius Sagna nee na paquetu ndox yii nga xamante ni maanaam ay 700 800 lay jar ci biir kaso bi ñoo ngi koy jaayee lu toll si juróom benn téeméer maanaam 3000 francs mburu fukki dërëm ak bennum nan Guy na ci kaso bi ñoo ngi koy jaayee lu toll ci 400 francs maanaam juróom-ñett fukk ba tey moom Guy Marius Sagna daan nay wax ne téléphone bi benn minute bu nekk 100 francs ngay fay booy woote sax ba mu dagg ñàkk nga sa 100 francs Guy Marius Sagna nee na en tout cas lii nga xamante ni moo am ci Cap Manuel mbirum banditisme la maanaam nag Guy Marius Sagna nee na kaso bi sax yi nga xamante ni ay paa lañ ay magu jëmm ñu dugg ca kaso ba dañu leen di simmi ba ñu seet weccee te loole nag doomu aadama la kaso nag Cap Manuel nga xam ne moom la askan wa di tëddee maanaam jéggi na dayoo genn xeetu jéggi dayoo koo xamante ni fu waay natt paas naka yéen kaay nee na en tout cas li am ba des sall Guy Marius Sagna wax na mafia mafia bi nga xam ne moo am ci Cap Manuel yéen kaay gi di la sax nee na Cap Manuel ki nga xam ne mooy Khadijatu Njuug Fay ko jiite woon nekkoon directrice ba moo taxit daan nañ ko fay dàqee yéenekaay gi ba tey ñu xëy fekk fa Boubacar Seye bi jiite orison sans frontière xëy na nag nettali lu garaaw a garaaw a garaaw moom Boubacar Seye mi jiite orison sans frontière nee na nag ci kaso bii nga xamante ni si la nekkoon moom Boubacar Seye nee na nag ay jàngoro ay feebar yu garaaw yu doy war a doy waar maanaam moom la fa jële jëlee na fa lii nga xam ne mooy jabet nee na la nga xam n maanaam moo waral jabet gi lekk gu bon a bon xam ne munu ko woon a lekk moom lañ ko doon jox mu lànk kandaareen du ko lekk mujj gi maanaam cerek suukar la doon boole di ko lekk cerek suukar soosé moo dem nag ba andil ko li nga xam ne mooy jabet crise cardiaque la mujjoon a daanu ba ñu jël ko jangeet jangetee ko yóbbu ko pavillon spécial maanaam yàlla baax yéen a kaay gi de Les Échos nee na université Cheikh Anta Diop bu démb yàlla baax waaye nag musiba ma bu kumba naroon na faa am xeex bu rëy moo doxoon diggante étudiants yi nga xam ne ñoo bokk ci kekendoo nee ma Casamance ak étudiants yi nga xam ne ñoo bokk ci Ndefleng nee ma séeréer yi yéen a kaay na en tout cas jàppante bu doy waar a doy waar la ñu fa jàppante ba nga xam ne recteur moo mujj woon ñi nga xam ne ñooy police yéen a gi la élection yi jot na ni ki démb Ousmane Sonko seeti woon na leen waaye nag ñoom daal la nga xam ne moom la proposé maanaam médiation judiciaire yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu yéen ngi fàttaliku yéen a ngi fàttaliku procureur Aliou Ndao bi nga xamante ni moo nekkoon procureur bu kër yi lu jëm ci wàllum teraanga ju lewul ji neema mbiri Karim Wade procureur Aliou Ndao moomee daal maanaam génn na ci presse bi nag yekk na musiba ak koo ñàkkal fayda exécutif bi nag lépp moo ko waral exécutif bi daal nee ma Macky Sall moom procureur Aliou Ndao nee na ñi nga xamante nag jamono ji maanaam ñoo yore réewum Sénégal ñoom ñoo bëggul justice bu tëddee njaaxaanaaya procureur Aliou ndaw ne bu ñu waxantee dëgg crise de confiance moo am diggante justice bi ak ñi nga xam ne ñooy askan wi moom proc nee na nag askan wi ñoom seen bopp Sénégal yi ñoo amutul kóolute ci li nga xam ne mooy justice bi te loola nag exécutif bi maanaam ñoom ñoo ko waral ndax amuñu benn respect ci li nga xamante ni maanaam mooy pouvoir judiciaire bi yéenekaay gi di laas procureur Aliou Ndao nee na nag Ousmane Sonko li nga xam ne moom la ñu koy tumaal su dee moo ko def nañu ko yóbbu nag ci yoon waaye nag su dee amul lenn amul lenn loo xamante ni gis nañ ko ci dossier bi nañu ko classé sans suite moom procureur Aliou Ndao ci réew mi ko di cee nee na nag ki nga xam ne mooy Antoine Diome na def attention na def doucement Antoine na def attention na def doucement bi mu ñëwee nag ci ministère de l'intérieur ba léegi nii communication boo xam ne bu bon lay communiquer daal te loolu nag war na ko moytu ndax Macky Sall ñetti at rek moo ko dese ci bopp réewum Sénégal moom procureur Aliou Ndao nee na nag ki nga xam ne mooy njiitu réew mi di Macky Sall amul amul sañ-sañ amul sañ-sañ def ñetteelu mandat ci yéen a kaay gi la tribunal moom procureur a nee bu Sénégal dafay tere Macky mu def ñetteelu mandat te loolee sax Macky xam na ko yéen a kaay gi de l'observateur ñu xibaar naan ñu magistrat yu ni ki démb doon nañu waxtaane lu jëm ci wàllum état de droit ak wàllum indépendance de la justice Souleymane Teliko mi nga xam ne moo jiite kuréel gi ëmb magistrat yu ni ki démb daat nay wax mu xam le nee na am bu ñu demee ba nga xam ne justice bi dafa feebal loole musiba la ci am réewa Souleymane Teliko nee na nag lii nga xamante ni moo am dal mooy bu ñu demee ba ñu ëpp ci askan wi jàpp ne justice bi na njaaxaanaay bu boobaa nag justice bi du am benn crédibilité yéen kaay gi da la Soleil nee na ginnaaw signature contrat yi nga xam ne ni ki démb Sénégal daana koy signé ak Mauritanie liggéey yi nga xam ne jëm na ci pont bu Rosso danañu ko door ci juin yéen kaay gi da la jamono ji nag Sénégal ak Mauritanie comme bu roog soow Sénégal ak Mauritanie dañoo réeroo woon waaye nag léegi neexoon nañ lool ma ne la ko mburok soow yéen a kaay gi di réew mi quotidien ñu koy fekk fa Assane Samb dellu si na ci juróom-ñeenti at yi nga xam ne njiit réew di président Macky Sall def na ko ci bopp réewum Sénégal yéen a kaay gi di esat xëy wax ci éliminatoire CAN 2022 Congo Sénégal tey ji la bu ñeenti waxtu jote yéen a kaay gi di sunu làmb combat Ama Baldé Modou Lô ñi nga xam na ñoo ànd ak Ama Baldé nee ñu jamono ci jàpp nañ ne Ama nekk na roi des arènes ba pare ndax su jàppee Modou Lô dina ko defal bagage